dikk nan tey gërëm di way ak a sant soxna si ñépp xam ñu naan soxna jaara dikk nan tey gërëm di way ak a si ñépp xam ñu naan soxna jaara soxna jaara bégal nga àddina wóor na yaa jox say xi bamba jaara ma jaaratullahi mooy turam wañu tan jaamu yàlla ak léegi ko may soxna jaaram soxna baaleeg maam bu zambaañu le jaara am nga tawfeex gam fa bal tudde jaara turandoow jaara ajjanaay wàccuwaayam koo mën a doon santal ci fi jaaram bu baale manoon ci kër man ci fu mu jaar ni ñey mu roy soxna jaara gëm na yàlla ak yónneen ba xam Seyxi Bamba xam na boppam ba far mu doon soxna jaara daana jëf daana lu toll ci fanweeri maam jaar ak juróom yu jàngee ca daaray poroxaan ja ñoo fa bàyyeekoo ñëw fii ci Touba Mbàkke ci daarul Minan ci kër sëriñ Basiiru bi ngir jàkkaarloo ak jury bi nga xam ne moom la ñu taxawal ngir ñu déglu leen ba xam seen mokkal alxuraanu karim wér na wala déet jury bi nga xam ne nag ñoom ñoo leen di déglu ñu ngi ko taxawal ci ndigalul Serigne Muntaxa Mbàkke moom Serigne Basiiru mi nga xam ne mooy xalif général des mourides ngir at mu jot ñi nga xam ne ñoom mokkale ca daaray maam jaara ja ñu indiwaat leen fii ci Touba ba jury bi wéral seenuk mokkal ci saal bi nga xam ne moo nekkee fii ci kër Serigne Bassirou gi ci lañ leen dajale ñoom maam jaara yépp boole leen nag ñi nga xam ne ay jàngalekat yi alxuraanul karim lañ te bokk ci jury bi kenn ku ne ñu déglu la li tàmbalee ci baqara ba naasi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 suuratul baqarati madaniya bismillahi rahmani rahim alif lam mim zalika alkitabu la rayb fihi hudan lilmuttaqin الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا walam tajidu katiban farihanum maqbuda fa in amina ba'dukum ba'dan falyuwaddi alladhi tumina amanatahu walyattaqi llaha rabbahu wala taktumu shahada wa man yaktumha fa innahu aathimun qalbuhu wallahu bima ta'maluna alim lillahi ma fi samawati wa ma fi lard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tuxfu yuxaasibukum bihi llah yuxaasibukum bihi llahu fa yaxfir liman yashaa wa yucadibu man yashaa wallahu ala kulli shayin qadir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 laa yukallifu llahu nafsan illaa wus'ahaa lahaa maa kasabat wa 'alayhaa maktasabat rabbanaa laa tu'aaxidnaa in nasiinaa aw axta'naa rabbanaa wa laa taxmil 'alaynaa isran kamaa xamaltahu 'alaa allaziina min qablinaa rabbanaa wa laa tuxammilnaa maa laa taaqata lanaa bihi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 إن هو إلا وحي يوحي علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى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 ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير إن إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقي في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عميق ulaa'ika yunaadawna min makaanin ba'iid bismillahi rrahmani rrahim idaa jaa'a nasrullahi wal fath wa ra'ayta nnaasa yadxuluuna fi diinillahi afwaajaa fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kaana tawwaabaa bismillahi rrahmani rrahim tabbat yadaa abi lahabin wa tab maa aghnaa anhu maaluhu wa maa kasab sayaslaa naaran zaata lahab wa imra'atuhu hammaalatal hatab fii jiidihaa hablum min masad bismillaahir rahmaanir rahiim qul huwallaahu ahad allaahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad bismillahi rahmani rahim qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idha waqab wa min sharri naffathati fil 'uqad wa min sharri hasidin idha hasad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 ñoom maam jaare yi nga xam ne nag ñoo jota mokkal alxuraanul karim seenu lim mu ngi toll ci fanweer ak ñeent ginnaaw bu leen jury bi dégloo ba noppi ci teewaayu kilifa gi nga xam ne moom moo ko jiitee muy Serigne Mountakha moom Serigne Mamor Pakala mi nga xam ne mooy président commission contrôle ak suivi bu daara maam jaara bu poroxaan bi ak mboolem ñi nga xam ne ñoom la àndal ci commission boobule ñoom maam jaare yi nag ginnaaw bi ñëw nañ ci barabu sëriñ Basiiru Mbàkke bi jàng fa kaamilu alxuraanul karim ginnaaw bi ci lañ fa bàyyi ko dem ci barabu sëriñ Moustapha Basiiru foofee it ñu jàng fa kaamilu alxuraanul karim ngir ñaanal jëmm yu tedd yooyu le ci fàttali atum 2022 bi lu toll ci fanweer ak ñeenti maam jaara ñoo jot a mokkal alxuraanul karim ca daaray maam jaara ja ci mokkalin wu wér fukk ak benn ñoo ci jot a bind kaamil di ko nal day garam di way yàgga sant si ñépp xam ñu naan soxna jaara soxna jaara bégal nga àddina wóor na yaa nu jox say xi bamba jaarama jaara jaaratullaahi mooy turam wañu tan jaamu yàlla ak léegi ko may soxna jaaram soxna baaleeg maam bu zambaañu le jaara am nga tawfeex ku gam fa balu tudde jaara turandoo jaara ajjanaay wàccu waayam koo mën doon santal ci mbaax gi fi jaara bu sa baale manoon ci kër man ci jaamoom fu mu jaar ni ñayi mu roy soxna jaara gëm na yàlla ak yónneen ba xam Seexi Bamba xam na boppam ba far mu doon Soxna Jaara daana jëf daana waar jigéen ña ca daana jàng ak liggéey ba doon Soxna Jaara xam-xamam wér na alxuraan xam na jaara am ca daan bind la woon cay jaara am na sañ-sañ bu rëy bii di ko ñaan daal mu def ko ngir moo di jaara Cheikh Abdoul waxam jaake yii mi nett leen ngir nu dolli waaru ci jaara noonu lislaam ba ñuy fexeel Cheikhi Bamba def ko ci kam ngir tuxal doomi jaara malaayikateem ngir dañoo sopp Bamba ne dañuy jiima dimbali doomi jaara maam bu safar fa teew ba génne fa xaadim naa ko seyqil xadim wéyal man la jaara maam bu safar fa teew ba génne fa xaadim naa ko seyqil xadim wéyal man la jaara di nga am ndam lu rëy ba del si ci réew mi dekkalaat sunna rey bi daa doomi jaara ku fi am Seexi Bamba am soxna jaara war a sax naan jaara ma yow soxna jaara noo ngi ñaan barke ak ngërëm ak i tawfiix du fan wér defal nu ko jaara